نانا وقتنا بأجتي وقتنا بأجتي الأسماء العاليات والأسماء الصوفية بكون تفك لاج يباي لاجون مكني في نعرف ñaari tontu rek la ci baay Euh, waaw xam nga asmaul aliyaat mi ngi mel ni kon ñaari tur am na turu fii ak turu kaw hmm. turu wii nit am fii moom la ñuy werante waaye turu aali moom loo oo rek mu uyu la par force loolu guddalu ca dafa indi misaal ma cheikh radiallahu waxoon ca jawahirul maani wa misaaluhu ma waqa lil jawhari yi ca misra jawhari yi mooy kan jawhari mi fekk naa ko man ci yeneen téere ñu wax ko ah ci benn maxbuub ci màkk sax gis naa ko fa jawhari yi mu ne benn waay la bu euh, xam ne këram ak niilu misra ci ci Égypte sorewuñ donc moom sax day dem di sangoo ba ci niil nee mu mu jóg ca waxtu teel bëgg sang ba ci niil mais yóbbuwaale Euh, farine bi ñuy lakkal mburu këram keroog branché ci fuur bi wàccee ko euh, mburu mi dem ca niil dugg di sangu ma ne bi mu sangoo ba raxas genn wàllam mu mel ni dafa fàddu tukki iraq mu muy sangu mel ni dafa fàddu tukki iraq am fa ay at ba takk fa jabar ba am fa ay doom yu bokkul biir mune ne mu dal di dellu ci yëgam wat eh, mottali sangom baaniyan mu mottali sangom ba jokk ko maanaam xam nga bo bo dogon japp lu yag bo ñewé da ngay jàppaat waxal ko ma sang bi nak mune ne kon yàggut kon liggéeyante soosu kon ben glissement de temps la ci xattanal yalla mu mu mu ñew borom waaj na ko yow kat xaw nga yéex ñew mu ne ko dit yéex nga man at yi nek ma nga nan ma xaw nga yéex ñew waaye ñu koy sa mburóo ko nit boo ko dépassé rek li gën mooy mu mboccele sa mbiri bopp waaw mu ne mu ñëw wax ko soxnaam li ko dal waaye ci xissa bi jawaayir mu ne jëmmi jamono soxnaam si mu gisoon ci xuruful xayaaliya euh, ndeke la mu doon dund lu am la kooku ñëw fa ci misra di laajte ba am adresse am ñëw ak doom mi mu oo soxnaam ne ko ki ma leen wax a ngi nii moom muy kër goo xam ne dara tumburanke wu fa cheikh moo ko ah léegi nag suma papa ne ma bi bàyyi nettalee comme ni mu ko daan nettalee ndax bàyyi jàngale na jawaahirul maani yi xëy na premier yoon mais am na yoon woo xam ne nusxa ba suma papa yoroon jawaahirul maani maa ngi ko yore fi waaye nag mu ba mu koo ko nett leen moo sukkër yi xaw fu mu ci yem ak moom mais bàyyi na ko waaye nag loolu moom mi ngi yaa ngi koy déggee ci al aanu daaim al mooy léegi daaim mooy continuer bon nag instant bu continuer ñoom ñoo ko mu ne ko euh, euh, mooy xadra bi baqaawu saa ci continuer rek amul fu mu mu ne nag mu di ko ko expliquer bàyyi di expliquer soo bàyyi dem mu leer naa ñi ci man comme kuy wax loo xam rek mu ne ba mu yàgg moom mu fàddu suma bàyyi fàddu maanaam attantu rek koo dégg muy wax rek yàgg <laughs> ne ba mu xiqee bàyyi na ko ah yàlla mën na lopp loolu daal di koy kii noonu papa mënoon nga dëgër tuuti rek <laughs> donc ci guddi googu ak rek xam naa ak ak ak tax mu ne wa xarajna min sataat ma rawa lana alfaqihu almadkuru xaditha bi sanadi muttasil ila nabi sallallahu dafa am lu ñuy wax xadisu ashura sanad la boo xam ne ku ci nekk mooy xadis bi nga njëkk a dégg ne da nga ko riwaay waat naa ne waat naa ba ci yonent mu ne mu ne waat naa jibril ne waat naa yàlla nee na ku li xadis boobu ñun bàyyi rawaa euh, riwaayat nañu ko ci bésab bésab ashura noonu lañ koy jële waaw mu ne ku oor bésab ashura yonent ne jàpp naa ne yàlla dina ko baal hmm, at ma ko jiitu woon at ma mu ne su fekkee nit riwaayal na ko ko mu ne ñu dem gannaaw takkusaan ñu dem hmm, ca gaal googa moo xoon kutbiya mu nga xam ne mooy gaal gu gën a rafet gu musa gis daal euh, muqaddam bi bi moo xoon ba tey ci Kaasa say suuf si gunge leen euh, ñu léegi rek ñu départ nag euh, bateau ba départ nag كانوا تبس جم دكار وصلنا لاس بالماس يوم الخميس وفي يوم الجمعة قلت bato bi dox ba ci Las Palmas ñu ngi fa ñu ngi fa yegg ca ci bésu alxames ba muy fàttaliku nag juróomi bayt yu mu waxoon ci li ko yàlla may ba mu tolloo foofu mu ne atxafanil mawla bi wastil bahri karamatan minhu kabiru sirri nashkuruhu bi sirrina wal jahri bi sirrihi wa bi jamili sitri عمر جامعا لنا ومدرسة وجاد بالمناهي المقتبسة ورزق الأصحاب فوق المنية بصحبتي وبكمال البغية ثم صلاة الله وسلامه على نبي الله وسلام mu ne bayt yi moo ko fa wax ne yàlla may na ma atxafani may na ma almawla yàlla bi wastil bahri ci digg géej gi karaamatan karaama goo xam ne min hu jógee ci moom la kabira sirri mbóot mu mbóotam rëy mu lem ko denc nashkuruhu danañu sant ko bi sirri naa ci suñ sirru d'abord wal jahri ak ci kaw ci làmmiñ bi bi sirrihi sant ko tolloog sirrul xaqi ak itam wa bi jëmee sitri ak suut su rafet sim ñu may xool rek aj gi yëpp sans faille zéro problème amara yàlla dundal moom yàlla jaami an jumaa jiñ tabaxagul jumaa joo xam ne lanaa joo ñoo koy moom wa madrasa yàlla na dundal itam jàngu boo xam ne ñoo koy moom wa jaadatu yàlla na tabe may ñu bil manahij ji ci programme yi nga xam ne al muqtabasa yoo xam ne dañ koy jumoo fu mu baaxee rek fu ne mën man manhaju Azhar dañ koy jàngale ci institut waaw aji na ba ñëw xool ma ngay projeté jumaa jumaa turbine la jumaa diine la ak école école boo xam ne te waxul école suñ bos ñoom da ñuy jàngale ay mbóot déedéet école boo xam ne ay programme universel ñoo fay nekk hmm. wa razaqa te yàlla war sëgal ñu ah, te yàlla war sëgal al asxaaba taalibe yi fawqal lu ëpp lañ mébét hmm. bi suxbati ci barke bi ànd ak man wa bi kamaali buxeeti ak mat ak càkkutéef ga ba tey mu ne suma salaatullahi wasalaamu ala nabiyillahi mu julli ci yonent bi mu ne wasalaam foofu laa yemaloon ويوم السبت نزلنا بدكر ضحوة الرابع عشر من المحرم الموافق ل 27 من مارس ولم يزل معي المحبان صادقان الخادمان الأرضيان تانك نيتيون لين سولينيه باراج مابدو اك نيم تولو اك باراج لا مي سخنا اك نيم تولو با ني ديبار اك سي ديغبا اك ماغي اندك نياري سوبي yu dëggu yi ñaari liggéeykat yiñ gën a gërëm taqaballahu minna wa minhuma wa huma ñoom ñaar kan lañ alxaajaani ñaari a ñaari alaaji yi almaskuraani yañ tuddoon awala rihlati ba ñuy départ waaye wax na ne aw maag taalube sama taalube aw maag moom diplomatie bu ko waree tudd la koy tudd rek waaye xam nga gaay ibnu ahmad maanaam bukaar wal amin ibnu abi bakar raahum allahu amin yal na yàlla sàmm ñoom ñaar moo wa wajat naa léegi léegi léegi maanaam wàcc nañ Dakar mu ne wa wajat na al allaamata al arshad wal badr al munir al asad al xaaj Mouhamed Zeynab Sinwi benn fekk naa Dakar mbokk yi may teeru mu ngi njëkk a souligné Baye Daaj moo Zeynab bu nga xam ne mu ne ku bari xam-xam lool la gën a jub di leer di di biddi euh, di weer wu leer nañ koo xam ne texe la àndal rañ xam Zeynab nga xam ne suma doomu bàyyi la sën wi sën wu mooy doomu bàyyi wa sayid ak sang bi nga xam ah, ah, wal euh, wa sayid ak sang bi nga xam ne mooy Muhammadul Haadi Baye Aadi suma Baye Aadi sën wi wa Abu Bakrin ak Abu Bakar sën wi xam na boobu magut lool bàyyi may la wal xaaji omar kan saahib yi bàyyi saahib yi maanaam murid yi ñaari baat yëpp dafa leen di alterner saahib yi suma taalibe saahib yi murid yi suma taalibe alxaaji omar kan kon laajum kan xam nga yàgg na ci pay bi hmm. waxoon naa leen keroog pour rekk nit xam àddina Cheikh Oumar ñaan nee ma nekk na ci ci bara boo xam ne am na ku fa nekk koo xam ne xamul ne Cheikh Oumar Niane xam na sax ku tudd Hadj Oumar waxtaan wa ñuy waxtaan ñoom neen rek laaj waaje waaje di wax ba tey nu meree Hadj Oumar Kane lim instruit woon <laughs> Medina ca booba ca mbir mu jiitu 1937 ñu toog ba daaw ngay ngay ngay mere borom demul église demul sax ci beneen tarixa yooyu nag mooy yi nga xam ne ci tarixa bi moom du mbiram sëriñ si du mbiram taalibe yi ay individu lañ وخاصة أحبابي فكنا في حاجة مركان أقسم التالبي خاص كلهم فكنا كلهم فكنا واقفين عند المرسى يتخوت كيبا ينتظرون نزولنا نبقى خارج نواتي ونزلنا عند رب منزلنا المتقدم ذكره نما أخوان بمن يوي فما دلون رك لا دالات وظلنا وظلنا يومنا ذلك وبتنا وسرنا زوال غد yowmul axad ñu dem fanaani kër ga garaaju markan yandu fa fanaan fa ëllëg sa nag ca zawal muy bésab dimanche ñu départ jëm ko wax fii am na am naa fi problème waaye gis naa ko xam nga bàyyi taxawul Dakar te booba temps boobu dafa mel ni yoon yi yombewul nii léegi jël jël jël cette place rek laa liggéey te son papa nee na ma yónnee na bay àddiya ba bay bind ko leetar xam naa daf ko yóbbante ñi doon teeru ji bay itam xam naa jox ko kooku mun mun maa gis leetar bi mu ne ko jot naa sa leetar ak sa àddiya maa ngi lay yónnee dara ci barkelu sama kurus gi ma doon wirdoo ci Makka mbiri naa ko yépp yaa ko moom yaa ak sa zurriitu bu bés pénc maa ko jëndoon ci ci ci miraas mi nañ yem foofu la parce que bon <laughs> léegi léegi ak ay barkeloog yooyu yónnee ko dafa gaaw ak man waaye xam ne noonu rek la mën a demee yóbbante ko ñiy dem moom itam mu ne ko boo demee nga jox ko lii mu ñëw ne man bi baay bi muy ñëw yoor yoor la egg si Kaolack du demee yoor yoor ah, taaliba yi nekk foofu yëpp dañoo demoon ci passage anneau boobu boo jógee ñeseen par exemple bi ngay jubloo fi saxaar ak jaar ñu bëri fañ demoon y compris sama euh, waaye diggante bi fekk na rek mu jiitu fi ba je crois que ki njëkk a jox bàyyi addiye bi mu jógee Màkka xëy na moom la am na itam lu ñu waxul am na yu ko wax bàyyi bàtt loolu aju ci kër gi loo xam ne moom kenn rek ko amee woon fekk ba muy ñëw ci affaire dépense yooyu loolu am na lu mu ko bàtt mu ne fa lamma balagna qaryata Kees xam nga xariyatu waxoon naa leen ne bu la arab jamono ji nag xariyatu mooy village dëkk bu ndaw mais non yi itam mën na doon dëkk bu mag ndax wasalil xariyata lati kunna fiiha bañ koy wax surtout yusufa misra la ci jubloon hmm. bañ egsee kees talaqaana al axu bi manzilatil abi al aalimu al imaamu wa sayidul humaam alhaaj aboubacar bañ egsee kees fekk na balaaji teeru si ko may xam nga moom itam taxliye bi mu ko def mu ne suñ baa suñu suñu mbokk la mu taxaw taxawaayu suñ baay mu ne am na xam-xam imaam la ndax boo doon imaam usawit xamaam alaaji sang la boo xam ne sang bu am maanaar alaaji Abubakar wa fariha bi qudubina mu mu ne mu bég ci ñibbisi gi ñibbisi détail yooyu yëpp booba dafa am solo xam nga kuy door a jóg war a dem fu sori ñi la dat xam nga toujours mooy saabiqoonal awwaluuna kenn du leen fàtte ba ne ba ñëpp ne ngéej kii la xam nga su boobaa yépp baax na waaye nag ni roowul wa fariha bi qudumina wa saara bina ila daarihi biñ egsee Kaolack jubaluñ Medina de balaaji baakaar ko yóbbu këram dafa dafa balaaj baakar bañ egsee Kaolack këram la yóbbu baay loo balaaj baakar dëkk ñeenti kër la balaaj baakar ak cukloo yi ci gannaaw ak suñ kër ak kër ñoom njéemi kon nag baay daa rek moom tubaarkal la mu ne mu fanaan fa wa bit naa indahu al isnaini fi kamaali sururin mbég mu mat nag من وقام بإكرامنا وإكرام من يفيد علينا نوصل ما ترلنا واي كفو نيورك نوي سمارك ساكر سمارك ترلنكو ويوم الاثنين عند الزوال يوم الاثنين بين دمي باتش الزوال صار بنا إلى المدينة مو يبو مدينة بلاج باكر خمي أكتف نكوس أنزلنا ذهب بنا صار بنا إلي أكتف كا وإكرام من يفد علينا ويوم الاثنين عند الزوال صار بنا إلى المدينة جازاه الله خيرا يا لك يا لفي وأتينا المسجد وحييناه كب مدينة وأبو جميل الدم كب جمال معنى مسجد بمعنى زاوية بابا زاوية يعني مدينة زاوية كمون نمتل تقبل ليس زاوية أهل الذكري سيال ينن مومن كلان تودي سكركدي سين زاوية aha wa xayeynaahu sallamna al ahbaab yi ñu ñëw bàyyi ab gis naa ay yoon bu jógee Màkka day ñëw itam jiital jumaa ci mbaar mi wax ak ñi ko doon teeru door a dugg këram mu ne ñu dem ca jàkka ja nuyu ko wa sallam na al ahbaabi nuyu taalibe yi lahum ñu ñaanal leen wa waazahum te leen al ñaari mbokk yi almaskuraani ñañ tuddoon alxaajaani ñaari Baye ma Mabdou ak Baye eh, Baye Baye Alhaji Lamine maanaam ñoom ñi nag teg seen bët gis seen ruuxu ànd ak Baye biñ ñëwee léegi woo waa xam nga waa de foog ne bàyyi rek watal way Baye noppi ñoom ñi wax nit ñi maanaam ñu jox leen rapport maa ngi fàttaliku tukki mu def mu mag mu ñibbisi ba ci jumaa ji ñu toog Baye ne baraam tënkal leen tukki mi ma dafa tënk bu tinki ko <laughs> Hmm. mu ne gaa ñi di leen waat xataa aqam na salaata duhri ba li xaamal uh, julli uh, kii julli googu nu mu tudd tusbaar wa bada salaati jitu daara wa sallamtu ala alwalidati biñ julee pare nag ma door a ñëw nag ci kër gi nuyu suma yaay wa daawtu llaha laha wa daat lii ma ñëw nag ñaanal ko moom suma yaay moom itam mu ñaanal ma wa radiyat anni mu wax ni ma gërëmee wa hiya fi axir umriha boobu ma ngi ci mujj ak dundam fa innaha tuwfiyat baada salati al asri yowma al isnaini li samanin baqina min al muharram ndaxte yàggul tuuti rek bañ maanaam euh, muharram boobu bàyyi ñibbisee mu ne gannaaw julli takkusaan ci bésam altine euh, fekk Euh, ñaar fukki fan ak euh, benn ba ci ñaar ci weeru tamxarit bi ci la maam astu gaañu nag mu ne sax ca laa doon wax di ko taarixal ne chumuusu haadin fiihi maatal aïcha walam tazal wastal jinaani aïcha ma ne baatab chumuusu haadin jant yu jubal foofu jaare rek doo juum boo ko chiffré moo tolloog waxtu maam maam astu gaañoo wax maa ngi muy waaj di tukki bay waaj a départ maama suub bàyyi nee na wax na ko bés na ko waxagoo ma dara de mm-hmm. mu ne ko enkay su ma ne la wax ne incha allah dinaa tukki ba ñibbi si fekk la fi ci jàmm mu ne ko a demal nag mm-hmm. wasallamtu ala alxalaa'ili mooy soxna yi wal axawaat yi ak mbokkam yu jigéen yi wa rajaatu ila bayti saliman ganiman walillahi alhamdu wal minnatu ma daal ñëw rek door a dugg sama néeg nag néega ma mujj fekk ñëw naa aw ma dara lu ma jot saaliman gaaniman te màng na doy na ci màng incha allah aj gu nangu ak yi mu wax yëpp ne ba muy départ Cheikh ne na ko demal maala la garanti dem yow ba mu dem fa wan nañ man ñaan yu nangu am nañ ni doon sàkku yëpp moo tax saaliman gaaniman dana yaatu mais ku tukki ñëw ci jàmm rek dara des ci sa yóbbal wala nga am fa daal rek saaliman gaaniman nga waaye nag du mu ne walilahi alhamdu wal minnatu am na mu ne ñaa am na bu ne ay woy yoo xam ne waxu ko ci biir li mu doon nettali parce que daf ko beroon ba egg ci pegg bi mu ne bokk na ca fañ euh, ko waroon bind binduñ ko ca méttotam la woy yi bañ a jaxase weesar bi ñaari baytee ngi nii mu ne ci arafa la ko waxoon bi ñëpp naan labbayka allahumma labbayka moom mi ngi koy wax waaye nag teg na ca labbayka talbiyatan min wasilin arafa min kawlaxin muntaha dunya ila arafa walhamdu fi daa wa daaka lil ilaahi fa maa lil abdi min masxalin fi l amri in arafa boobu talbiya xaas la mu ne ko maa ne la béykat maa ngi lay uyu uyu bu tegu ci uyu te du taxawa ci talbiya tan talbiya boo xam ne min waasiliñ jógee na ci aji xegg ci yàlla arafa woo koo xam ne xam na yàlla maa la la béykat la béykat ku la xam min kawlaxin maa ngi déparé kawlax muntaha dunia ca pegg àddina ila arafa ba ci arafa maa ngi uyu mune walhamdu cant gi nag fii daa ci lii wa daaka ak lee lii li laay ñaan la yàlla moom kenn lii yëg ne yëpp de yàlla rek laa ciy sant fa maa lil abdi jaam bi amut min matxalin ci potox fu muy potoxloo fil amri ci mbir mi in arafa dem xam na ko jaam yoonam nekku ci amul fenn fooy potoxlu mbiru yàlla rek mu ne waxoon naa itam ca minan bi xay fi minan niltul muna niltul munal yawma shakiran وقربت زلفى حين جئت المشاعرة وذي عرفات لا أبوح بسرها ويشهد مولى الخلق قلبي شاكرا ونتشا وخونا من انت النبي خايف من انت خايف من انت مسجد خايف تشارع المرسلات فوف مالكم مين مالك آه من انت خايف من نلت امنا المنى مبد اليوم تي shakiran bi mooy aji sant yàlla meew ko may wa quribtu jegee leef na ma zulfa ak jege xëy na jiitu ba ma ñëwee al mashaira barabu jaamu jaamu yàlla waaye ba ma ñëwee ci masharul xaraam dañ maa jegeel waaw am naa am naa am na am naa qurbu zulfa mu ne wadiita lii kat arafaat arafaat a ngi nii dem nañ fa ba ñëw waaye laa abu xuduma feeñal mukk bi sirriyaa ca mbootam mbootam arafaat moo ko wax waaye charuta dana seede mawlal xalqi borom bi ndee fi xal bi yi xol sama bi shakira muy aji sant yàlla xam na ne maa sant yàlla gannaaw ga ci aj ak ñaareelam gannaaw ga wax na ci benn xasida bu doon togg yonent wa biir wa fil xajji wa fil xayfi yowma wa fil xajji yowma al iidi bil xayfi min minan jihaaran ataani al mustafa bil manaaih ca aj ga bésu xayf ca minan ci lu dul nelaw yonent indil na ma may yi hmm. wa qultu fil bahri baada ma jaawastu tuur mu ne waxoon naa itam bi bato biy dem bañ romb tuuru Sina xam nga dëkk euh, barab bu chargé histoire la mu ne waxoon naa ne fa man lii bi barqin min sanaa'i Dakaari wa qad jaawaza al-baabuuru bahra Konaari wa yaxruju qattaarun li Kawlax qaasidun tujaabu bihi al-aflaa li qurbi masaari فتلقى بدور العصر من كل ماجد إليه إذا عد الكرام مشاري أولئك قوم نحوهم نحو ربهم فجازوا فحازوا بذاك النحو كل فخاري لئن جمع الأيام بيني وبينهم تلو الأمن فيا حسن أيام مرن قصاري فبتم دفن نمون أنا قال نم taalibe بكلن خوفوا leen xaw fu may jëlee romb kii romb tuur mu ne xaw fu may jëlee melax gu jógee côté Dakar araba koy wax te suma bato bi romb na île Canaries mu ne xawma kañ lay gis saxaar jéeri goo xam ne dafa départ jëm kawlax nga xam ne manding mi yëpp bi nga koy dog ni ñi nekk ci biir ba fa ñuy war a ziyaare jege mu ne foo ko defoon boo duggoon sa xaar ba dem Kaolack fa talxaa danga daje da fa fekk bu dural asri weeri jamono ji min kulli maajidinti jëpp aji tedd ilayi koo xam ne mu shaarin kuñ junj ilayi jëm ci moom ida uddal kiraamu bu ñu continue baax ñi da fa fekk ci kawlax ñi nga xam ne jamono ji ñu nekk ñooy ñooy weer yi ni weeru Badar mel parce boobu yàlla rek lañ bëgg yàlla rek lañ nekk <laughs> tegoon na leen ca bi waxaat na ko nag ulaayika ñooñu may junj xawmun aw nit lañ ñoo xam ne naxwuhum jubluwaay seen naxwu rabbihim mooy jëm seen borom rek mu ne fa xaasoo loolu tax na ñu làq bi daaka ci loolu ñu am biet bi daaka naxwi ci googu jublu kulla faxaarin bépp um, puukare la in jamaal ayaamu bayni baynahum bés bu ma bés yi dajaleeg ñoom fa yaa xusna ayaamin marana qisaari bés bu ma demee ba daje gaayee ti dellu faat gis leen ndongo yooyu sang yooyu ñu baax weer yooyu maa ngi yéemu ci taara bés yooyu nga xam ne lu ñu gudd gudd dañuy gàtt maanaam doy mukk wa qultu fii wadaa'i taybata wa makkata mu bi muy tàggu nag medinat munawara tàgg na medina lii xool mu ne ko yaa taybatal Mustafa yaa tiba rayaaki والحسن أجمع يلقى من محياك حسن علوت مكة ذات البيت إذ شرفت بالبيت والبيت من طه فبشراك نكو يو طيبة جون انت المحمن ميالتان يا طيبة رياك ما يمو تايك سقد قتل معنا لا والحسن تار أجمع لبكت يلقى دفنا دجيتكم من محياك تسكنا مجي كوي أتار دالنا الخور alauti farenga nga kaw gañe nga makkata makka zatul bayti mi borom kaaba gi lutax tax mu ne ndax tedd na moom makka bit bayti ci kaaba gi wal bol baytu ta kaaba gi min taa mi ngi joge jëw bu bushra sans yonent lan la kaaba gi tek tegtale abu jaala ne ko di tooñ ñi xërëm yi wër ko way bi sax kaafiya bi kan ci way waykatu serigne abdou yi neex baal yi mos ko mbokk bu ñewé foofu dina rek wayal ko bàyyi bàyyi di ko may xaalis rek ki sant mbay mu ne ko min ni ilayki salaamun kullama wafada fikir wufuudu wa labba kullu man jaaki min ni ilayki salaamun kullama waradat bi xujrati lmustafa amlaaku mawlaaki min ni ilayki salaamun malxabibu sawa wa saaxibaahu wa ansaarun bi maswaaki mu ne ko maa ngi lay nuyu yow yow Madina noo bi nag du dagg mukk fekk délégation yaa ngi ñëw ku ma sal labbayka ci màkka ñëw ziyaara si maa ngi leen nuyu nuyoo boo xam ne du fi jóg mukk fekk malaakay sa borom ñi ngi wër ko maa ngi leen nuyu nuyoo boo xam ne du dëñ mukk fekk sang bi kiñ sopp ki mook Aboubacar Omar ñaari saabaam yi ak ansaar ñi ngi foofu astawdiu allah inda al mustafa abadan shahadataya li luqyaahu bi ma awaaki maa ngi dénk yàlla fii ci yonent bi laa ko dénkaane te du fi jóg lima wax ne ashadu an laa ilaha illa wax naa ko dénk naa ko yonent bi dénk naa ko yàlla ci kanam yonent bi xam yàlla dénkaaneem du sànku أستودع الله عند البيت إن إلهي واحد أرسل الهادي ووافاكي bi may tàggu Makka maa ngi fay dénkaane li ma gëm ne yàlla suma worom kenn la te moo yónni yónent bi maanaam tawxid laa fa bàttali dénk ko yàlla wal taktubi wal taktubi llahu ibrahima nazimahu wa walidayhi saidan inda am inda imlaaki mu ne eh, yàlla yàlla na nga bind ibrahim bi woy woy wi ak yaayam ak baayam ñu texe waxtu wuñ koy dicté di ko nettali na nga wax ne ñiy texe nañ وكل سنين بولي المشيتم كل سنين بيب داوي باي وأهلين أك بيب نجابوت ثم ما ولدو أك لنجور صخ ومن يحب أكيب كسب نما يحب زوينا كوني سب رك داما مرخاكي واي مدينة يلا يجي يجي يلا صخ وارزق لنا زورة جمعا تقر بنا بها عيوننا بالبشير الساجر الباكي لكنك تنقى يلا نيورسدلنك زيارة بوخمني ñun ñëpp koy bokkee bokkee suñu xol sedd ci ñun ñëpp bët bu sedd ci arab mooy xol bu sedd te ñi ngi koy ñaan ci al bashir yoon ci al muhammad as saajidi ki nga xam ne mooy aji sujjoot ca pay ba al baaki kay aji jooy yàlla أزكى صلاة وتسليم وأبركها عليهما شغف المشتاق شغف المشتاق مرآك ما يجولي تورنت بي جولي جنك لي صخرك فيك كو صبو يوننت بي جيس لدى فايتخ مكونتان من نقو خد اختصرتو رحلة اي اختصار دا ما رجي من قتل رحلة بي جيب قتل لو منت نعكرك لاجت ولم اذكر ما يتعلق بنفقات تدو مش دار صارلو اجي كي اي ديبانس والركوب بحرا اكيتام لو دي ديبانس بو بو, بو نيوي لي ام راي نياار يفتح نك احدهما بن بموي انه يختلف باختلاف الازمنه والسكك loo xam ne dépense yuy soppeeku avec le temps jarul ma koy wax mu ne wa saani inna fiihi baada tanfiirin ida axsa kullahu yadunnu da uxsiya kulluhu yadunnu daannu annahu laa yakfi ma duunahu mu ne dama ragal itam su ma waxee dépense yi lii lay kii di mu ne xëy na bu ko nit demee di calcul dafay foog ne moom li mu am mëtu loolu te mënta ñàkk loolu ba ba maanaam mën naa am man آه، فيعوق يقال لك كوري اشي علي آه، فيكون علي اسم من ذلك لول من ما من مام تبكار ما توخم لي ما ديفانسي بوك ما كنا يتايل دم تمن ما صح والادعيه ما ذكرت منها في المواقف الا ما ورد في السنه ناني يعني وخم فب فما دم تي اجي للسنه دي واخ رك لا فوخ والا فالغالب اني ادعو بما شئت لو موي li ma tudd nga xam ne damay wane ne ci sunna laa nekk li ëpp nag damay ñaan lu ma neex damay ñaan maanaam damay rab damay tëccat di ñaan wa kathiran ma usalli ala nabi def ci ala ma usalli ala nabi mu ne bari lu may julli ci yoonu sa moo bari fii tawaaf bi fatih li ma uxliqa yu bari sax ci tawaaf bi damay ñëw di tawaaf di jàng salaatul fatih rek وكان الشوط بعشرين منها سمورا بدل سيتي خطبي دي فك مام نياف كي صلاه الفاتحه مرتله يتينك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لول موي رحلة بي ليش لسنا خينا من نجم كده بين أي درس نفته دفع إندي خاتمة يبغيتنا كنا أي خم خم ينا خم ها ñu yem foofu wala ñu ñu laal dafa bëri nag moom eh, xam nga diggante su sukkari indi na ko ci laal ci tuuti waaw kañ bi mu egsee Faas waxoon na mu ne maanaam asallahu taala حسنها نيار بوجيس نيوم مؤلف خاتمة بوجيس ها ميجيم في خاتمة بي مانام خاتمة ليد موي كونكلوزيون بي أسأل الله تعالى حسنها ماني نيان يالا رفتك موج موج برفت مانكو نيان يالا وتتميم لما فات في رحلتي أما دمي كي موت اللي لو خمنا جوت بكون بندي كبير رحلة من ذكر مسائل سئلت عنها فأجبت أي في وخنا مكران لاك ماي تونتو وإجازات وغيرها أقل إجازة ما في دفر أكثر ينن استدراك أبيات قلتها في فاس من أي بيت يغني وقال بما أي فاس بما يدم لا وخون الحمد لله على وصولي مسناجو من فوق ما ملاجا وخون ما ملاجا بنين لا مامتم الحمد لله على وصولي لفاس دار شيخنا المامولي شيخ التجاني المتناهي المولي كل البرايا ما لهم من سولي برزخ في مجد الأولياء الجيلي فما سوى الجيلي فكل جيلي آه فاترك مقال ذي هوى وقيل كيما ترى مناهج الوصول فلن ترى من عارف موصول إلا بسر شيخنا المقبول من زاره يفوز بكل سول من كل سر وجدا محصول وزرته كوالدي وأولي إنا رجعنا بجميع سولي والحمد لله الكريم مولي بيت يويو rajas la bu mu def maa laa yelzam maanaam rajas mën na bajonoo benn xaafiya waaye mu fop ko def yëpp laam laam laam laam yëpp sant yàlla mi nga xam ni accident pass loolu maa ngi ko ciy gërëm fii la suñ sëriñ dëkk ki mébét ñun ñëpp am li ma yor Cheikh Tijaan yi ki nga xam ne moom da nga koy topp rek du jeex te mooy méngale yiñ ci mbindeef yëpp loo liñ am rek ci ay tëb waxoon na ko ca euh, ifaada mooy barsax bi dox diggante awliyaaw yi ak xaqi muhammad yi waaw ñëpp la wax nag jiile ku ji jiile mu ne fatruk bàyyil nag bul faale maqaala si waxi borom bànneexu ba bakkan waqiilin ak demale fekkele boo ko buggee boo buggee lii ñëw da ngay bàyyi loolu kay matara manahjir usuli soo dégluwul kuy wax ci passion am ak ak demele fekkele rek danga nga gis fi ngay jaar pour egg فلن ترى من عارف موصول دو جسمك عارف واقم نيجل نيكو إلا بسير شيخنا نقبل لما يتم قوتم تبقى سيد سليم من زاره يفوز بكل سوني لأن كل زيارة جنجر يالا رك دنجا جات كي لب لينغ دون وود من كل سر وجد محصول مبمبوت اك بيب نجرين بو خامن بو ني امان لا من وصفته كوالدي من زيارة ناشد ناشيخ كم سو باي نيون نفي تبران كلون بما لا يدفو Ah. en mille mille trois cent huit ci ci ci ci bi en ah, yàgg na yàgg na boobu boobu ñu bëri demuñ demuñ faas mu ne am naa ay bayt yoo xam ne nag moom Sukkarij moo ko ko waxoon xadimul xadratil muhammadiya ci Ahmad Sukkarij moo ne woon ba ya zairi wa bi qalbi kaana maswaaka na siitu min nii yeddi in kuntu an saaka am ay affaire ci biir maa ngi lay tatagal yow kii ma nemmeeku si ñëw nga sa sataat nuy si ma wa xal bi te ci biir sama xol kaana maswaaka la sa saxuwaay yaa ñëw nuy si ma de tey nga dooru ñëw waaye bu soo jóg ci sama xol bi na siitu fàtte naa min nii ci man yeddi sama loxo bi in kuntu an saaka ndem fàtte su ma la fàttee rek mooy fàtte naa sama loxo bi kenn du fàtte sa loxo sarayta min ni ya masra ruuxi min jasadi yow yaa ngi royaat ci suma biir comme ni suma roxo royaate ci suma biir li sidqi xubbin bihi mawlaaka xaabaaka ngir dëggu cofeel gi la yàlla may sa borom laa taxsabannaka qad daat xutaaka wa qad faasat bi waslika lii bil yumni yumnaaka bul foog mukk ne sa jéego yi nga jéegi ba ñëw fii sànku nañ bi sa loxo laalee sama loxo rek dara rawatu la wallahu yaraaka fii xillin wa murtaxalin yal na la yàlla sàmm ci booy laxas ak booy sippi wa niltu sirran bihi tatiibu maxyaaka tayo am nga mbóot moo xam ne nag sa dund bi yëpp ci lay teeyee wa sadru min ka bi nuuril xaqi munsharixun wa sadru dënn bi min ka ci yow Ibrahim Niass munsharixun bu ubbeeku la bi nuuril xaqi ci leer ak yàlla xataa ba daa ba mujj feeñ sax sirruhu mbootam ala mu xayaaka ci sa kanam gi ku la xool rek sa mbóot mi ci sa xol bi feeñ ci sa kanam talaata fi xayina badran la hubtadarat min na talaiu bichrin xaysu yardaaka yaa ngi ne tëll ci suñ gàdd gi suñ quartier bi tey comme weer wu fenk boo xam ne yow itam bi nga moom bu muy feeñ rek ñun itam mbég mi ñu am moom itam fenk fekki ko te yàlla daf laa gërëm وقد تلقيت منك الفكرة منك بما فيه رضاك وكل الخير وافاك كل mu ne ko euh, bintul fikri mooy aw xasida loo xam ne doomi sa pensée la dañ koy wax bintul fikri recevoir naa ko mooy xasida bi nga ma bi nga ma jox bi nga ma waxoon gërëm naa la te xiw yépp ñëwoon na la bi nga ko waxee fahna bi xajjika wa na bi ziyaarati li fahna maa ngi leen dokkeel بحجك تسا أجي وهنا مانغلين دوكل بزيارة لي تلين ما زيارتي سان كومبلكس مانغلين دوكل تلين أجي مانغلين دوكل تلين جو فيدي بل لي تجاني وخما صح من لين زيارة صح شيخ الشيخ تيل نغا صح تعلو دي كوي بعلياك تسا كوي جي كوي دي كوي رك واو واحمل سلامي إلى أخيك فهو أخي تنغنويل ما تنغنويل ما سمبوك بي باي خليفة لي وخ فهو مام أخي سما بقولا وابني الحقيقي سما دام ليتم الذي بصدق واقعك تجسناني من لي مبكو شيك دق مجلقي لازلتم أهل ود في كمال رضا لازلتم يلا بغن دن ما نبين آل عبد الله أهل ود تنين تشفيل تشيخ في كمال رضا كمتك نغرماني وفي مراخي العلاية دوم مرقاكا te nag yéeg gi nga yéeg yow jëm ko yal na sax bu mu arrêté bàyyi nag ne waa hiya al-abyaatu llati qultu lahu fa ajaaba li ma ko waxoon nag ba mu ne ma tontu mi ngi nii man dafa ñëw rek نيسك إنك ما كنت تعمله هذا هو بشراك هذا خليفة قطب الكون مأواك يا بهجة العصر إني لست أنساك إن لم أنا إذ لم أنل في بلاد الله شرواك فكيف أنسى الذي أشواقه ملأت قلبي فقلبي دواما عندما غناك بل كنت أرسل روحي كل آونة هذاك يا شيخ جسمي اليوم وافاك te géwél yi ñu tagg gaa yi ndeke yàgguñ li mu ko wax rek mu ne ko maa mu ne wax boppam ne ko maa kunta yow yow man maa kunta li nga nekkoon taamalu di mébét ko haadaaw mi ngi jot nga ci bushraaka kon nag bégal haada kii ngay waxtaanal tey xalifatu xutbul kawni tey mooy xalifa cheikh Tijaan xutbul kawni ma waaka ki nga xam ne moom mooy sa tàppuwaay cheikh yi sa tàppuwaay mooy kii kii mooy xalifaam mu oo sukkay ne ko yaa bahjatal asr e yow taarab jamono ji inni man day lastu an saaka du ma la fàtte mukk is ndax lam anal amuma fii bilaadillaahi ci réew yàlla yi tey charwaaka ku mel ni yow parce que sukkay ci taaju ruus ci tafassuxi fi nawaaxi suus rixlaam la bu gudd bu mu def ci baxaru kaamil bu léegi-léegi day wax yim gis comme boroom rek la léeg-léeg mu toog di fàttaliku ko ay yëf ba mu demee ba ci foofu ca sud du Maroc am na bés muy fàttaliku maama e, di wax ne bi mu tàggoo maama ñaari loxo la ko maama laaji amee loon booba waxinu arab la lii min hu yadaani loxo bi moom laa ci nuyu benn bi ma nuyu ci Malick wax ji nga dégg yépp lubb baa ngi noonu nuyu naa la yow mu fi ñëw am Malick ñëwut mu xaj Malick si radiyallahu anhuma ma mu mu ne nuyu naa la nga amee beneen loxo ca laa nuyoo waaye nag ca biir ba am na fu mu fàttalikoo crash bi mu amoon ci xam-xam moog bàyyi man sa mujj naa lettre boo ko bàyyi bindoon di ko laaj ci mbiram aska gerte musuma gis teggi listu teggin bu mel noonu bàyyi sax def ne rek Mawla am sayidana tuddul Sukayri moom si ñëwut sax lettre ba ndax luy nangam ndax luy nangam ndax nangam ndax nangam maanaam ba mu ko su koy gisee rek dafa ne ankay waxoon naa ne dañ koy génne duñ ko génne diggante boobu nag amoon na ay kii wax na ba tudd bàyyi ci rex rabare li ma ko sopp soppu kaada an yan saani mi ngi may waaj a fàtte xool bàyyi egsi na ko inni lastu an saaka kër yi wax ko sànq ne ko su ma su ma la fàtte woon man fàtte naa sama loxo bi sa fin naa ci dem nag ba sori من من بابام لي دون مبد ميغيني كي يخلي فتو القطب الكوني منك يا باتات العصر دوما لا فاتي اذ لم انل في بلادي لا شرواك فكيف انسى الذي اشواقه ملأت قلبي نك لا فاتي كو خمني صب اك نم غي مكو دار سما قلبي فقلبي دواما عند مغناك من توجو سما خورغي سكر دوما لا فاتي بل كنت ارسل روحي كل اوينتي من صح وقتونا سما روح لا يبل موي نيو دي لا هذاك يا شيخ جسمي تينك تور سما يرام يونا مانجي سما يرام جسمي اليوم ما وافاكس بوجيك روح سما روح دان يو تي سما يرام يتم يونا انا سما روح سكيلج القرم سر الختم من خضعت له المعالي فيعلو كل من حاكا منكو سكيلج القرم السنجبي سر الختم كي موتم يونا شيخ mi xatmu wilaayal muhammadiya sukkariñ man mi nga xam ne maanaam sukkariñ mi nga xam ne xada a na la woo ñeel ko maali daraja yu ko yëpp ñu ci ronam fa yaaloo te muy kawe moom kulla man xaaxaa képp ku jéem a niroog moom sukkariñ mag la woon mus am sax benn faqih bu fa ñëw nuy si ko du ci kanam bàyyi beneen bés la rek faqih ameen daal kuy oote dara kuy kii daal kuy bon sukkar yi nag bëgg ko laay biir bëgg ko mu wàcc ci darajaam su koy tëb rek daal di ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne xamal na ma mbooleem xeetu xam-xam dara rawuma ci ah ay ne ko nga ne mu ne ko waaw ah, wax naa di ma wax ko ah loolu nu mu demee mu ne ko wàccul ci suuf ma jàngal la <laughs> loolu rek kan la ci waaja dafa amutoon xëy na yàlla mu yàlla teggee mu ne ko nga ne nag toog ci ne ko mu ne ko waaw jàngoo ci buxaari ak ahadis yëpp ne yonent nee na xam-xamu miraas séddalee tërika ah, mooy gannaaw xam-xam mu ne ko waaw wér mu ne ko dama ko mën ci théorie ak ak pratique mën ci soppandiku nu ma neexee kon yonent nee na ma am naa gannaaw xam-xam mu ne ko bi ci des nag mu ne ko boobu dañ ne nisful ilmi mooy laa adri moo ci xam-xam mooy lu ñu laaj xamoo rek nu xaw ma ko lii kenn moo la jaaxaloon ba mais nak du baye won dara mu jall téré mi yépp ñi ngi yu bëri ñu koy mool fi mu ne mais crash rek ci la dëkk amna na benn taalibeem bu ñëw tagg ko qasida bu gudd mi ngi ci benn téré mi su koy di bam paré di xaar su koy ñaanal ko yoy su koy ne ko ndax dang ma mën nga ma jox ko la du ñëw ëlëk nga wax qasida bu guddé ni xidima xass mu ko man ne ko subhanallah këcfu na ko yàggul rek waa ji bi dem fi màkka jàll fi iraq rek gis boppam rek bind sukkër yi naan ko fase naa lépp lu nekkoon suñu diggante min mazhabin wa tariqi sukkër yi ndeysaan daal di koy defal xasri bu mel noonu wan ko ne ndeysaan mbote ca daaj waa jooju moom mujj dem ba ba ba ba ba taalif téere di ci xas tijaan fii téere ba yegg Madinatu Munawwara ci jaamia ba génne wuñ ko ba benn jëmmi jamono ñu mool ko ma ñëw Makka gannaaw bu ñu ma nommé conseiller ci affaire africaine ma nuyu secrétaire général deuxième ci série bi rek mu ne mu génne ne ma téere bi gis nga ko ma ne ko gisuma xool nii gis muy waaja euh, kooku kooku su koy rij ne woon waaw ma ne ko eh, ma ne ko jàngu ma ko de waaye mun naa la wax li ci nekk léegi mu ne dem bu nga jàng ko def ci def ci rapport ma ne ko baax mun naa ko wax léegi waaye bàyyi ma dem jàng ko ndax waa ji laa xam mu dem jàng nag defal leen rapport waaw ne téere bii di xas Azhar di wax ne ahlu sunna Hind rek lañ nekk waa Misra ñaari nguur yi jotee ba jàngalekat yépp ñu retiré ñu ñibbi ñu dem bañ juboo bañ dellu ñu nekk ci état bu bees bii ñuy wax lii di wax li wax kuy tëb génn téere bii di ko génnee ci rabita bi ñépp bokk ma ne ko loolu du ngeen laaj ba xam lii fuñ jëm ma wax nag wax nag wax nag wax na ba jox leen seen ko walastu naasiya ihsaani ah, waaw mananta bihi wala yamallu lisaani awdu dikraka walastu naasiya ihsaanin du ma fàtte mukk lu teraanga yi nga ma defal boo xam ne mënant bi yaama ko xéwal wala yamallu te du mukk sàppi lisaani sama làmmiñ awdu mukk awdu mooy lu jëm kanam zikraka fàttaliku la du ma fàtte mukk li nga ma defal te toujours sama làmmiñ daf koy wax lakal xanaaw bi ma ulitahu araban aw laytahu araban walil hanaaw bi ruyaa yi mu xayyaaka li nga ma méngale ci càkkutéef ak soxla maa ngi la ciy ndokkeel li nga xam ne ma itam gis naa sa kanam maa ngi ciy ndokkeel soxla waaw macha allah guddi googu nag ba ba kii bàyyi na ma bi mu xëyee ak sukkeeri mu ko gunge gannaaw xadis boobu mu ko dafa doon gunge muy dem gaar ba pour jël euh, saxaar dellu si Casablanca dem sañ mu ne euh, Sukari dafa meloon ni daal daanaka daal ku ku xaal daal ndax mu ne dafay wax yëkkati baatam naan ko naan ko zaatun min an nuuri tajassamat loolu mooy maanaam kii leer gu jël forme nit la di jox nañ baay bu pare ne xuuluha an nii nett leen ko nëbbu ko lii lu mbóot wax leen waaw mu ne bàyyi mu ne mu naan ko lillaahi daru abin wala dëkk bàyyi bi da jur a baax da ngeen foog ne yooyu ay éléments yu ndaw nga xam ne moo ñu naari ci Abdou Ngom daan na wax ne ñaari kuro yi ba jaar ay jaay ay xaram sax ci Sénégal bu ci dogee ñaari mètre per cal kaala wu le الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله صلاه تفتح لنا بها وتيسر لنا ترتقي شرق الزلازل يا رب لله يا hmm? لو <laughs> برهام باء وراء ألف ثم هاء